ginnaaw janoowam ak taskatu xibaar yi ARTP daal di nekk autorité de régulation des télécommunications et des postes waral na nag ba directeur général bi daal di toog indi ay leeral ci coow li nga xamante ne nag moo daal di dox ci Sonatel ginnaaw Orange ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet ba mu jëlee ay tarifam daal di koy yokk loole daal di waral nag association des consommateurs daal di xaatimoon ak plainte dem déposé ko ca kanamu ARTP moom nag dal di nay indi ay leeral di xam seeni plainte bañ ko ko indilee daal dinay jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di waa Sonatel ngir ñu daal di deltuwaat ginnaaw ci njëkk la nga xamante ni ñu nga koy facturer askanu ko Sénégal ci mbiru offre yooyu Sonatel dafa tegoon ci marché bi le 22 juillet ate boobu may nañu ñu dégluwaa waa Sonatel ñu déglu consommateurs yi ba yàlla may ñu tey ñu am atte boo xam ne farul fenn atte bi mu ngi far ci intéret général mooy ngëneelu askan wi bi ñu paree àtte bi tey euh, yàlla may nañu ñu mën a def ci marché bi ñu obligé Sonatel mu def ci marché bi offre yi nga xam ne kenn ku ne dina ci mën a gis boppam en fonction de son budget ak li muy jëfandikoo internet ak téléphone. loolee moo di ay kàddu directeur général bu ARTP. ginnaaw bi njiitu réew mi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ba muy def conseil des ministres mu ngay doon sàkku nag ngir rek ñii di waa ARTP daal di artu kërub liggéeyukaay gi di Sonatel ngir ñu daal di deltuwaat ginnaaw gën a xool tarif yi nga xamante ni ñu nga koy yëkki di ko tekk ci askanu ko Sénégal ngir rek ñu daal di ci mën a delluwaat ginnaaw ARTP daal di ne liggéey bi nag saa sile tembe noppi déconnexion bi nga xamante ne askanug Sénégal ñu ngi koy jëfandikoo bés bu yàlla sàkk. association consommateurs yi parce que ci tey ci dal ñëw nañu fu àtte amee mooy ARTP ñu déposer seen i plainte bu loolu amee ñun ñu woo Sonatel àtte d'abord mu aj offre yooyu mu tegoon ci marché bi àtte tam mu mën a indi yeneen offre yoo xam ne nit ñi dinañ ci gis seen bopp loolu bu amee itam mënuñu bañ a euh, gërëm Sonatel mais surtout gërëm président de la république ki nga xam ne mooy njiiteelu réew mi mooy ki njëkk ci consommateurs yi mooy tam ki nga xam ne fu mu toog li combat am mooy li gën ci population sénégalaise di leen xamal li tam ñun ARTP askan wi ak intérêt moo ñu fi teg te itam lépp li ñu war dinañ ko def surtout ci mbirum couverture mooy téléphone bi yegg téléphone bi ak internet bi yegg ci ci Dakar d'abord et puis ci gox yu gën a sore et puis fexe aussi ba téléphone bi euh, njëg li euh, bañ a seer mais surtout fexe ba téléphone bi ak internet bi qualité bi baax parce que qualité bi moom ñëpp xam nañ ne qualité bi baaxul te loolu mooy suñu xeex saa yu ñu xëyee ci loolu la ñuy liggéey euh, opérateurs yi am na ay matuwaay li yu ñu jëloon ñun ak suñuy équipe ñu ngi vérifier nag ndegam loolu ñu waxoon ñu ngi koy def buñ ko defulee dinañu teg ay décision ci seen kaw. mu mel ni waxtaan yooyu nga xamante ne nag kërub liggéeyukaay gi di ARTP daal dina koy amaloon. dal di jàkkaarloo ak association des consommateurs waaye tamit noppi jàkkaarloo ak ñay liggéeyee ca diwaanu ku Sonatel ginnaaw njiit la ba ko dalalee fukki fan ci weeru août gi la ñu génn yooyu lay waxtaan nag yooyu yëpp daal dinay aboutir ñu daal di am ay résultat ginnaaw Ilimix 1900 bi nga xamante ne yóbbu woon nañ ko ba ci 4500 daal di nañ ciy deltuwaat ginnaaw bu baax a baax xamle nag ne kërub liggéeyukaay gi di orange daf ko yóbbu woon ba ci 7500 ginnaaw waxtaan yi nga xamante ne nag amaloon nañ ko saa si le tembe rek këru liggéeyukaay gi di orange daal dinay deltuwaat ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci le directeur général de la RTP